yàlla na ngeen fi yàgg di ñëw di fi teewe si barke bés barke bés bii te xam ne lii leen tax a jóg nii tey lu lu ama ama am la si ci réew mi li li ñuy wax di ko mbébét nii lu am la waaw umpalul kenn ci Tëngéej tamit umpalawul kenn ci waa Kër Xaadim Rasuul ndaxte ñun bi ñuy bi ñuy nekk ay xale lañ koy dégg fii ci kër gi ak suñuy waajur yi benn maanaam ci man ki ma yar borom kër gi dama daan toog ay ay kilifa ñooy fii ñëw ci lañ ko tàmbalee di koy def di ñu ñëwee fekk fi kilifa boroom kër gi dañuy wax ak moom kooku ne leen man da li ngeen may wax ni sama papa bi ma jur maanaam mooy ki fonde kër gi mu ñuy wax abdu Karim Ndiaye mu ne leen kooku de mosuma ko wax xanaa boobu gën naa nekk xale te boobu xëj na loolu maanaam du woon lu ñuy wax góor gi ne ko leen fii ngeen ñëw nii lii de seen seen bés la jarul ngeen di may tàggu di ñëw comme sëñ bi jaar na fii ci kër gi ngir nga leen ne kër gi seen kër la loo leen ci mën a def seen kër la loo ci sabab lu ko def tamit seen kër la kër gaa ngoog te loolu biñ ko tàmbalee dégg naa at yooyu kenn xamul woon na sax sëñ bi jaar na fi magu magu dëkk bi ñi fi nekkoon kuréelu murit yi ñooñu ñoo doon ñëw boobu jamono ñëw fii di wax si dañu bëgg di màggal kër gi màggal gi maanaam niñ ko doon tàmbalee dañ daan ñëw wàcc kaamil ci suba gi mooy kilifa yi njëkk yi fi murit yi fi nekkoon bu ñu ñëwee xëy wàcc kaamil bu ñu wàccee kaamil defar seen bendel bu midi ñoom ñëpp ñi dem ñi di koy def di koy def di def loolu di koy def ba mujj gi yëf yi gën a law bi yëf yi lawee waa kuréel yi kuréel yi tëngeej maanaam ñëpp jóg ñooñu mën naa ne génn nañ àddina sax mu des fi mu des fi ñoo ñu yor kuréel yi fu nekk nag la nit di jóge fu ne maanaam bu bu ñuy buñ koy tàmbali dañuy xëy wàcc ci kaamil ñi nga xam ne ñoo fi représenté kuréelu jaar ñoom jaar-jaar bi lañ koy wax sax jaar-jaaru sëñ Touba bi la ñuy wax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo fi ñoo fi yor di ciy ñëw ba léegi maanaam mooy kuréel yi ba Dakar fu ko waay dégg bésu jaar-jaar bi fii ñëpp ay ñëw ñëpp ñëpp ay ñëw fu ne fu ne la ñuy jógee fu ne toog nañ ci ba nga xam ne sax dañuy ñëw ba Dakar ñoom famille Maam Cheikh Ahmadou Bamba yi am ay ay conférence wala ay yu leen oo ci Dakar mais bu ñu déggee na jaar-jaar bi Tëngéej dafa am fi sëñ tubaa jaaroon dañ koy màggal ñoom ñëpp ay ñëw fi wàcc si ba ñoom Maam Moor ñu ci mujj ñoom Maam Moor Mbàkke ñoom ñëw bu ñuy def jàng yi sëñ Saliou ture mooy yëpp la Thiès ñoom ñëppay ñëw sëñ Saliou ture mooy yor gàmm kii jaar-jaar bi ba bër set jàngkat yi ñëppay ñëw sëñ Touba li li lay wan ne jaar na ci kër gi moom maanaam fu mu teg tànkam sëñ Touba fu mu teg tànkam rek am na lu mu fa bàyyi ñun fii lañ daan toog man fii laa daan toog soxna may bu sëñ Touba fii la ma daan romb dugg ci kër gi muuru kolo dënkam dënk yi muy kolo ñëw di sees si benn doom maam Thierno biraayam boo xam ne fii la sey ci kër gi goro la ci kër gi umpaañu kële la Cheikh ma leen xamu fi dara umpaañam la ndax moo nijaayam ñoo doon sëy soxna moomu Thierno boobu am na fi njaboot njabootam ñii fii seen kër maam la soxna moomi doom maam Thierno Birahim la Mbàkke soxna moomi moo doon sëy fii ci kër gi kon nga xam ne du hasard ay jamono dañuy toog am na ñoo xam ne dañuy wax naan sëñ Touba da jaar ah dañuy wax rek mais bu ñuy def jaar-jaar bi ba tànk ci mbedd yi fee doomu soxna moomi bi ñiy toog ci ci tànt bi ak tribune yi daf ci am benn at boo xam ne wax na paral boobu wax na ko ñépp di ko dégg ci tëngéej nee na leen sëñ Touba ñëwam bi mu ñëw fii maanaam du hasard sëñ Touba ñëw bi mu ñëw fii kumpa la ci tëngéej kumpa moom la dafa mel ni nga gis mbóot miy dem rek nga jël sa dàll nee na nga dóor mbóot mi mu dee moom ci famille bi la commencé bëgguñu siiw daal kër gi moom ñi Abdou Karim meññ ñëpp ay sëtama ak sëtaatam ay doom bëgguñu wane wu bëgguñu si bëgguñu ko leen xam dañu xam teraanga nag di def lu baax rek lañ xam te ngeej gi yépp nag te ngeej gi yëpp ba mu daj ki fonde kër gi Abdou Karim ci boppam moo njëkke teraangam moom la fi sëñ Touba fekkoon Abdou Karim Ndiaye Abdou Karim Ndiaye boobu maanaam maam gisali mooy waajuram ki ñuy wax maam ngi gisali mbay Abdou Karim fi euh, waa Saint-Louis la moom foofu la foofu la soxe ko moom mu nekk nag ku yàlla may mu nekk noobal bu mag Abdou Karim moom këram gii dëngéej ku ne jaar na fi si defal ko mu defal la teraanga moom moo njëkk moom lay sëñ Touba ñëw di ko ñaanal mu nekk tout tànk bi mu fi ñëwee sëñ Touba dafa génn di def tournée am fu mu war a dem nee na mu ñëw ba côté gaar ba ci la tourné am ku mu àndal kooku ne ko mu ne sëñ Touba ne ko waaw fu may dem pour yeesal njàpp ñu mën a julli sam continuer suñu yoon nen ba mu ñëwee ba ci koñ bi benn koñ dafa seen ay àll rek nag àll boobu tëngéej melul ni ay àll la woon ay àll nen ba mu ñëwee ba koñ bi dafa ñëw xool koñ mu ne ko lii de koñ la góor gi góor gi mu àndal téyul ko saak bu ne ko léegi teñu teeñoo dem ba ci koñ bi ñu dem dema dem ba ne la jeexal mbedd mi naka lañuy ñëw ba ci tali bi rek nee na seen benn buntu kër muy buntu kër gi tey mu nekk benn xantu baraak góor gi daal di puus baraak bi ndànk buntu bi góor gi dugg ki mu àndal ni tey yor bagage sam ay saak ak satala mu si jaada yooyu daal la yor xam naa mu xool fu mu yeese leen jàppaam nee na bu mu tijjee ni buntu bi si la seen vieux Abdou Karim mu nekk tout tànk à l'âge de 6 ans 7 ans la ñu dégg laa dégg xale bi mu ne xale bi am na mu ne sëñ bi am na ku nekk nii de xale bi mun ne nii xale bi ay kaay kaay kaay góor gi mu àndal moo ko wax loolu nee na sëñ xale bi daal di avancé ba si kanam munu sax wax nee na a ne ko an sa yaay xale bi daal di dem oow yaay ji muy maam gisali mbay tey maam jigéen ji fi dëkkoon mu daal di xëcc mbuur maire bi maire bi ñëw taxaw jàkkaarloo sëñ Touba fii mu ne ko ex jigéen ji daal ne ko excellent excellent mu ne dañu bëgg rek fu ñu yeesale njax mu ne ko waa excellence ñi daal dugg nag ci kër gi fii ñu tey bi ñu duggee jigéen ji dalal leen ñu toog ni ci ëtt bi ëtt bii tey ji amoon na benn sërngulu baraak bu fi nekkoon baraak boo xam ne dégg naa sëñ Touba fi la nekkoon ci biir kër gi fii baraak boobu yàgg na fi yàggaay boo xam ne dégg naa après bi ñuy defaraat xam naa di restaurer kër gi ci lañ ko dindee parce que am am na ay jamono ay nit ñëw fi jege côté Diourbel yor seen ay agenda ñooñ tam dañuy def recherche xam naa mais bi ñuy ñëw fii ay 3 heures lañ fa dugg si bi ñuy ñëwee doomu soxna moom moo leen fi indi ku ñuy wax Souleymane kooku tamit suñu kilifa la maanaam léegi moo des si famille bi doomu soxna moom mi la moom moo leen fi indi ñooñu bi ñu ñëwee keroog dañu wax ne lu tax baraag boobu ñu di ko dindi dañ ko fi waroon bàyyi def ko genre mausolée bu mag ñooñu ñun xamuñu leen sax dañu doon def ay recherche xam naa. ay góor lañ ay jigéen fii lañ gaare sëñ Touba ñëwam bi mu ñëw maanaam kumpa la def na fi plus de 15 jours ci li ma dégg fii ci kër gi te kooku benn suñu benn goro muy maanaam nijaayu kële moo jóge moom Paris la dëkk mais moom nee na li mu ci xam yëpp da ko def ay archives sax da ko def bind def ko denc ko këram ba doomam bu koy laaj da leen di wax sax loolu naan leen na ngeen xam ne loolu lu ñu lu am la seen ma seen kër boobu sëñ Touba fi. mu ne bi mu toogee mu ne sëñ Touba def na fi may mu ne plus de 15 jours moom mu ne ma nit dañuy wax rek xamuñ sax lu ñuy wax ma ne ah sëñ Touba soxna moom yi fii la dugg sëy si bi mu paree dafa ñaanal bi bi mu fi defee ay fan yooyu. su waree dem jigéen ji moo koy téye xam nga bu njëkk ba nit ñi dañu baaxoon te nit ñi boobu tam bariwuñu ndeysaan léegi mu ne sëñ Touba bu waree génn ne dafay dem nee na jigéen ji téye ko maanaam di ko defar teraanga ak lu mu tuuti tuuti ak lu mu toll ci alalam loolu la toll woon moom ak sëñ bi ci kër gi bu musaa toog ci kër gi bu ñaanee ñaan julli ba pare dina dem ci néeg yële ci ginnaaw mooy ci biir kër gi moom la ñuy wax fu ñuy wax ñun kër gu ndaw lañ koy kër gu mag la fii ak fële kër gu ndaw te sëñ Touba booy dem ay boo demee ci ay maanaam ay bérébam fi mu dëkk estilu këram yëpp noonu la kër gu ndaw kër gu mag dangay dugg ci pot bi génn ci kër ga ne sëñ Touba bu jógee fii jàng ba pare dina dem ci néeg yooyu toog fa jàng ñaan génnaat néeg yi nag bon ñun bu ñu jàppan na néeg yi fan la ci duggoon duñ ko xam baax nit ñi bu ñuy ñëw ne dañu bëgg ziar ñun xamuñu mais xam naa daal am na ci béréb si nekki benn bu mu nekkoon soit nag man dama xalaat na sax mooy fi doom ji sëy si mooy néegu fi ñu naan kër euh, soxna moom mi fi mu dëkk ci néegam la moom mi si néeg yooyu la dëkk wala dëkkoon bi mu génnee bu génnee tamit day dem kër kër gi ñu jàkkaarloo am na séddéem bu nekkoon foofu ak benn garab xaw ma la nee na gudd ah, ay 6 heures dafa daan dem toog tamit di ñaan sëñ Touba bëgg bëri boobu kër gi ñoom bu ñuy def seen seen teranga yi bu ñuy def cant gi dañuy dem yóbbu fa seen berndeel yépp toog fa la ñuy toggee lépp mooy kër gi ñu jàkkaarloo mooy fi boroom kër gi tamit taalu bi Cheikh na Cheikh Saad bu ku baax la woon Cheikh Ndiaga Kane la tudd at mu jot suñu waree togg mën na leen bës ba leen di togg ba amatoo leen foo leen togg sax na ngeen ñëw teg ko ci sama diggu néeg bii ci sama saal bii ngeen teg fi cin ni togg sëñ Touba jaral na lu ne kooku tam génn na àddina moom taalibe xaadir bu mag la woon këram moom lañ jàkkaarloo nii sëñ Touba bi mu paree mission bay dem ci kër gi ah woon na góor gi woon na xale bi oo toog ne ko yéen lan ngeen nga bëgg ma ñaanal la ko sa doom ji sëñ Touba nee na ko lan nga bëgg ma ñaanal la ko sa doom mu nekk sama doom ji day sëñ bi ñaanal ma ko rek mu gudd fan yàlla defal ko barke dégg naa xale bi toog ci wetam mu toog mu taxaw tey si bopp bi bi muy laata génn mu ñaanal ko nekk sa doom ji dinañ ko dégg fu ne ci àddina yàlla dina ko defal barke dinañ ko dégg fu ne ci àddina bi loolu moom wax na ko sëñ bi dégg naa loolu la ko ñaanal tey si bopp bi ñaan raay léegi nag xam naa après si la si la dem bi muy dem tam dégg naa côté yi la jaare nii mbedd yi ci la génn dem ànd ak ki mu àndal bi mu demee sëñ euh, sëñ Touba ñaanam gi dafa dal ndax kii mu ñaanal góor gi muy wee Abdou Karim Ndiaye moom moo njëkk moom laa la wax teraanga fii la fekk baax ci kër gi moom la sëñ moom la sëñ Touba ñaanal mu nekk nit ku ñuul koo xamante ne moom moo njëkk a liggéeyloo ay tubaab. sëñ Touba bi mu jaaree fii ci kër gi def na fi séjour bu biir bu day ni li mu la wax. ñun nag dañoo nekk ay sët di dégg suñu maam yi di expliqué lu bari ci sëñ Touba moo tax ñu mën cee wax liñ ci jot a jàpp ni bu si jaar-jaar bi bu jotee ci kër gi fii lañuy lal tànt fii ci kër gi dinañ wàcc fukki kaamil ak lu teg tànt fii ci mbedd mi lañ ko daan def boobu ñun ay jànq yu ndaw lañ fii lañ daan tàntee ni dugg ni tànt ba ci koñu police bi ñu yendoo koo def togg seeni berndeel ba mu doy ñépp di ñëw jaar-jaar bi ñuy mujjee jaar-jaar fii ci kër gi dama ko fàttu mukk soxna muy Mbàkke mi mu doy bi muy wax nii tey ne fii la nekk ci kër gi booba këram fii ci ginnaaw bi ñuy wàcce kaamel dafa yónnee ndaw ne boo leen demee ne waa jaar-jaar bi sëñ Touba wàcc na fii ci kër gi ziar si biig ci guddi bés boobu jaar-jaar bi am na lu ci yàlla def lu baari sax ndax keroog la ñuy gis loo xam ne nit ñi musuñu koo gis gis nañ ci ba gis ci ay américains yoo xamante ne bi kenn xamul fu mu jógee macha allah yàlla def ci barkeel lool sax sëñ Saliou Touré mi muy wax ne moo doon yónnee ta moom amoon na ay jamono moo daan ñëwal boppam te bés bu ñëwee ba tollu tëngéej fële la daan toll xale yi di ko jëli di raam ba yegg ci biir tànt bi fii ci buntu kër gi mu def cérémonie officielle def lépp ñu fanaanee jàng ba bër set ajju bi bi nekk guddi maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ne gaar ba la déparé fa ñuy déparé dox jël tali bi rue bi tourné ba pont bi retourné waat dellu si ñoo def ngontel maam Ibra Cheikh Ibrahima Fall fanaan fi ba bër set ñu xëy samedi bi nekk jaar-jaar sañ Tuubaa bi ñu koy sante yàlla suñu borom ndaxte du hasard Sëriñ Tuubaa yaakaar naa ne fu mu mën jaar rek du hasard xëy na cër la xew am na lu fi yàlla def ba tax mu wàcce ci kër gi fii te loolu fi yàlla def ñu ngi koy sante yàlla suñu borom bu baax mu fekkoon fi góor gi maire bi di wax moo sol costume bu noir be mooy vieux Abdou Karim Ndiaye te li mu la wax dëgg la ndax moom moo njëkk a liggéeyloo Blanc te bi muy liggéeyloo Blanc moo leen doon pelloo xaalis yi tubaab yi ñoo doon pell xaalis yi di ko def ci buret dikk indil fii ci kër gi ñu koy sol ci saako di ko riime ci léegi ak ay manœuvre am mu leen di fay premier noir africain moom moo njëkk liggéeyloo blanc fii ci Sénégal kon xam nga ne am na may yàlla suñu borom an kulli ma